Rewmi 24 TV bismillah dalen leen ak jàmm ci mardi 26 décembre 2023 professeur Sidi Alpha Ndiaye moom mi ma ngay xamle ne dossier wu Ousmane Sonko bi conseil constitutionnel daf ko war a valider ndax kat li nga xamante ne Ousmane Sonko manqué na ko du te sax conseil constitutionnel di am euh, cas bu mel nii daana fi am ñu koy rek lijjanti kon bu fekkee ne candidature Ousmane Sonko bi daal manki manqué li nga xamante ne rek moom mooy lu ci demee ne fiche de parrainage loolee du coobereem ndax kat Ousmane Sonko moom ku ne ne tribunal bi jox na johat ndam joxaat ko ndam kon ñu bari ci askan bi daal ñi ngi am yaakaar bu baax a baax ci rawatina nag waxi euh, professeur euh, Sidi Alpha Ndiaye ji yi nga xamante ne ñu bari xam nañ ko ci réew mi ma ngay xam ne daal candidature Ousmane Sonko jamono yi lu ñu rek valider la ndax kat amul Ben sikk kon bu wax ñu bari ci askan bi jamono yi daal dinañu am yaakaar bu baax kene ba ka conseil constitutionnel euh, jëlee rek la moom mooy valider ndax kat boobee la candidat amul benn taas valider rek moom moo leen war.